asalaamaaleykum mbokku internet asalaamaaleykum mbokku internet 24 actu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun uh, saa su nekk di ñaanal sëriñ Mountakha Bachir suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ba naar bi nga xamante ni naan na ko ngi liggéeyal ko maamom ji di Cheikhul Khadim yàlla may ko kàttan ak mën goo xamante dina ko ko eggalee ci noonu rek la ñuy daal di poroxloo gis ngeen ko tey nekk bisub cant nekku tamit bisub ziar di bis bi nga xamante ni ci la ñuy màggal jàmbaar ji di Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nekkoon taalibe bëggoon loolu Cheikhul Khadim ku ko wax rek da ngay daal di wax Cheikhul Khadim ndaxte daf ko bëggoon lool amoon lool ak taalibe moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tey nag nekk bis bi nga xamante ne nii ci lañ koy màggal ñuy ziar nga di ko dooree rek ci Serigne Sidi mi nga xamante ne nii mooy xalifa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Serigne Abdoul Ahad mënuñu ñi nga xamante ne nii ñoo nekkoon ak moom tey nag ñu seeti si ki nga xamante ne nii moo di Soxna Ndeye Ndiaye nekkoon nag ci wanagu Cheikhul Cheikh eh, Abdoul Ahad Mbacké doon fa liggéey liggéey bu am solo moom rek lañ daal di ñëw seet si tey naam ne sax mbas mi lëmbe réew mi di coronavirus tax na nañ daan màggalee màggal gi defeewuñ ko mu am ak coppeeku waaye du tee dinañ ziar ndax dañuy dundal màggal ki nga xamante moo di xasida yi Serigne Bamba yi duñ ko door waxtaan bi te dalaluñ ki nga xamante ni Serigne Pape dañoo bëgg rek Serigne Pape daan ñu yëkkatil ci xasida yi ñu soog a seet ki nga xamante ni moo di soxna Ndey Njaay bàyyi laat génne na seytaane biir tuuba tànkam dootu fa jaar selal na alxuraan mbégum seex bamba yàllaaw seex abdullahi laa tibbal tamaynu yaa yor lu dul jeex di doomi bamba adi seex abdoulaat eh, soxna ndey Njaay ñu ngi lay nuyu di la ziar te bëgg na nga waxal ñu ci sang bu tedd boobu lee di sëriñ abdul axat mooy kan maa ngi leen nuyu yéen ñëpp maam Thierno maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak di leen siyaare bu baax di rafetlu ñëw gi ngeen ñëw fii si nag bu ngeen ma ci laajee dinaa ci sawar waaye wax ci dina ma xaw a jafe lool ndax mën nga ci xëy di wax ba ngoon jot te du tax nga xaajal ci liñ xam ak moom ndax Cheikh Abdoulaye moom moo ñu yar moom lan xam moom lan am ñoo ngi siyaare sëriñ Sidi Abdou Lahad ak njabootu Cheikh Abdoulaye gépp di siyaare soxna May Laat ak njaboot gu jigéen gi yëpp su ma ziyaaree sëñ Sidi rek ambaale na góor ñi yëpp di leen ñaanal gudd fan fañ bëgg a yegg yàlla nañ fay leen yàlla yeggale di ñaanal sëriñ Sidi Mbàkke yàlla na am ngërëmul sëñ mbàmba maamam ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax fan wu gudd bu ànd ak wér gi yaram noonu nañ siyaare soxna maam xari Mbàkke sama wóllëre sama xarit di doomi Cheikh Abdou ñoom ñëpp nag ñooy samay xarit di samay soppe waaye soxna maam xari Mbàkke sëñ Abdou Lahad moo ñu boole ñu àndoon nekk belel mu nekk kër sëñ Cheikh Faye ma nekk kër sëñ Abdou ñu di fa liggéey sëñ Abdou nag moom ku nekk xam na ko moom géej la woon rek moom liggéey la njabootam sëñ Bamba la doon liggéeyal waa kër sëñ Bamba la doon liggéeyal muy kenn koo xam ne ku xiir la woon bernde moom dëpp ci moom la dëppee ndax ñun ñii yare nañ ñu loo xam ne ndoxu raxasu kim raxasu la daan xoole soo soo taajaan raxasu su dee tuuti muy suñu waajur yu ñu fa nekkaloon muy Baye Baara Ndiaye di ko ñaanal yàlla yokk leeram muy koo xam ne moo doonoon léppam mu wóolu ko ci côté bu ne yaakaar ko ci côté bu ne doonoon ab taawam danaan wax sëñ Baara Ndiaye mi mooy sama taaw mooy magi sëriñ Sidi ñoom ñoom it ñu fonkoon ko lool nag mooy waajuru sëñ Abo Ndiaye mi ma yor ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla yokk seen leer barsàq euh, nga xam ne bu baay baari xëyaan jox ñu dépaasu euh, kër ga suñ toggaan ba taaj raxasu raxasu ma rek bu dee tuuti la rek paan nga feesu rek baay baari da koy këdda waaw da koy këdda saabu liibar booba jafe woon na lool gan ñu amaan saabu liibar la ñuy tegal gan ñi saabu liibar booba buñ ca raxasoo pare na ci dañuy daajiwaar yeneen mu xër lool lekk bu desutoon yaatu danaan la li nga togg doyut muy kër gii mu nekkoon ci jumaa ji muy këram gii mu toogee xalifa léegi dafa amoon mbaar moo xam ne ci biir la ne woon mbaar mi ñu lontu ñeeg ñu yàlla jàpp ñëpp fa lañ daan nekk mu daan xëy di fa joxe dépasse dépasse boobu ñun ñii dañ ko daan ay elo suñ xëyaan di ko togg suñ toggee tey benn bis xam nga léeg-léeg jigéen togg mu neex léeg-léeg jigéen togg mu naqare suñu waajuroo muy bàyyi baare njaay suñ toggaan teg ko bu ko neexut da koy filan ni sëñ Abdou Lahad nee na ñii ci mbaar mi ak ñi ci biir laa yemale bañ naa ko ba jox leen dépasse dee leen toggal lu neex lu ñu bëgg dañ leen daan toggal yàpp jën yu mag ganaar te boobu mooy way laago yi newoon ci bunt bi nga xam ni soo duggaan ci kër gi rek ñoom nga fay fekk nga xam ne Cheikh Abdou Lahad moom ñépp la yemale woon amut xëy ji amut seen macha allah ba bi muy noppee dem àjjana fekki baayam li ñuy wax naan wàcc na alal wëccu dara juróom-ñaari junni moo nekk ci poos dencalu dara ëllëg moom lu lu ñëw rekk joxe na ko di xaar leneen bi sëñ si di waxee ne rek moom ndigal ci lay day amul lu sëriñ Mountakha yaakaar ko wax ko ne ko nii ngay def ak nii muy wàcce kaamil jàngi xasida benn bam doon def ñu di ko def loolu daal lañuy def ñu ngi togg di joxe fekk ngeen ñuy jàng alxuraan loolu sëñ laat dina ci wax ndax moom itam sëñ Abdou Lahad mii toog di sama doom eh, sëñ Abdou Lahad ko jëloon tudde ko boppam leewu ko tudde ko boppam su ma ko bootaan ñëw dañ ma daan wax su ma nekkee beleel eh, bëgg dugg ci biir ñoom bàyyi seex gubee ñoom bàyyi bëkk néeg yooyu su ma leen jubee ñu ne daa bëggati xaalis su ma ñëwee toog jël laat teg ci dënnam ne laat mi samam laata bu ko yëkkati ni ko jógal ca kaw dina xaalis jox maanaam solom bi nit ñuy wax sëñ Abdou Lahad ko tamal heure bu ñu demaan da koy jox jesneer moo tax jesneer yomb ko may ko xaalis su ma génnee nit ñi dañuy njëkka ne di raay boppam bi bi mu amee juróom-ñaari la ko jël jox ko sëñ euh, jiili doomam mu jàngal ko alxuraan mu jàngal ko alxuraan ke sëñ sooy bu bi mu mokkalee sëñ jiili téye ko ci këram yor ko mu di ko jiiteel ba xale bu ci mokkal alxuraan balaa sëñ bee gëm ne mokkal nga alxuraan sëñ laat mii da koo xool loolu lépp ñu ànd koo ñoom njabootu sëñ Abdu Lahat nag ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ci caat mi soxna maam jaara mi dénk sën laat mu soxna baali ba ci xaadimal Moustapha ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal gudd fan ndax ñoom ñëpp samay lépp lañ teg nañ ma fuñ tegut kenn di ñaanalaat sëriñ Sidi Mbacke rek yàlla yàggalal ñu ko fi mu gunge ñu ba ci kanam kanam dara ngeen jëf sëriñ Abdoulahat géej la loo ci wax rek am na lu des tey ji bu ñu doon wax fii ba suba du tax ñu pare ndaxte sëriñ Abdoulahat ay jëfam neexut a waxtaane ci benn ay minute rek ndaxte nee woon naa la jàmbaar la loolu ci yoonu murit ñu daal di toogee nag ci beneen côté bi ki nga xamante ni moo di sëriñ abdulaat nekk nag ñu daal ko koy tuddee lu def nag lu dul daal koy nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu soxna si ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di siyaare sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basiiru di xalifa général kullu murit di ko ñaanal yàlla guddal afanam te wéral ko lool ak mboolem njaboot Serigne Touba gi yëpp di siyaare Serigne Sidi Mbacke mu kilifa di sunu Serigne sunu maam di sunu lépp ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam lool te wéral ko te may ko ngërëmal maam li muy sàkku ak mboolu njaboot Serigne Abdou Lahad gi yëpp ak njaboot Serigne Touba gi yëpp ñu ngi nuyu mboolem suñu bàjjen yi fi teew yëpp ñenn yi di suñuy waajur ak yéen ñi yor bi. ak jàngatu xasida yi toog ak conférence yi nekk ci jotaay bi. waaw moom de moom ni mu doon yare moom mooy ni bàyyam doon yare rek. moom ni doon yare yare rek la doon yare moom ñëwul indi yoonu boppam. dafa daa daa ñëw fekk eh, li fi bàyyam indi woon mu mu mu sàmbal ko ko daal moom daal moom ni ni mu doon yare mooy ni Sëñ Tuubaa doon yare wuute wuute ak ci genn anam waaw wuute wuute ak ci genn anam eh, xam naa moom. sëñ bi daal moom mënuma cee wax ndax daa daa am fu ma féete eh, ni ko suñu waajur suñu waajur yi waxee noon mm, non non noonu la amee daal wax dëgg yàlla dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko yëg di ko dund bu baax ndax eh, li ñuy doon xale xale xale heure bu ñu génnee dañ daje ay kilifa yoo xam dañ wax sëñ bi fi mu ñu tegoon ak ni ñu defoon ngir jëmmi yàlla ak suñu maam Baye Baara Ndiaye mi doon àndal suñu waajur yi léegi mi ngi koy wax nii léegi rek. Ah, benn kilifa dani ma yow bàyyi la nii la ay yére yombe ak nii la xaalis yombe sëñ moo la ko fàggul ndax dalaa ci li mu xaalis bu baree baree baree baree baree nii nañ ko ko defal ay ay ay wëris ba mu fees lépp dun ay yére yàlla seede na ni lii ay mag ñoo ñoo ma ko wax tax bañ ñoo koy wax fekk na sama waajur dégg dégg naa ko ci moom kon nag sëñ moom ñun amuñu dudd moom ñu ngi koy ñaanal rek yàlla dool ko ay leer dool ay xéwalam te may ñu ngërëm moom suñu sañoon nag yàlla danañu ko fi bàyyil ba li ñu yëg ci suñu bopp mu fekk ci lu baree baree bari waaw moom daal mëni su ci wax ndax xol dafa sedd guy ci moom rek day jëmm joo xamante ni si buy wax ñëpp lay waxal du euh, dëgg la mën na mën naa wax ni moom buy wax yoonu murit yoon ci yoonu murit lay waxee waaye nag bu waxee moom ñëpp la euh, concerné ndax moom jëmmi Sëriñ Tuubaa la jëmmi Sëriñ Tuubaa nag moom buy wax ñëpp lay wax ndax moo njaboote ñëpp moo tax buy wax ñëpp a koy déglu waaw waaw loolu daal xanaa topp ndigal li rek ndax ku fi daa ñëw ak ni ni mel nii eh, daawul demee nii ndax soxna si daanaka daana ci def yitte yoo xamante ni si ni ko njaboot si si sëñ Blaat gi daa màggale nu ko raw la ko la la koy màggale ndax pas-pas bu mu am ci sëñ Blaat ndax da màggal gu jot daana ñaari nag ak ak juróomi xar ndax daraa wax ni moom mi damay wax ni ma bi sëñ Blaat bi ma ko dencal dara bi ma ko dencal dara yàlla seetlu na ni démb rek yëkk ne ju junni jox ma ni ma ni ma ni ma bis bee ko tax a yàlla xam na loolu téeméer junni la yëkkati jox ma ko ni ma ni ma bu ma ci dellu si benn weccat kon nag maanaam ñun amuñu lu dul Sëñ Abdou Lahad daal waaw Sëñ Abdou rek la ñu am nga xam ne moom lañ toogal ku bëgg Seex Abdou Lahad rek lay waaje te loo ko wax ci boo ko naxee ci Sëñ Abdou loo ko laaj danga nga jot ca loola moom rek la bëgg saa ñu toogee Sëñ Abdou rek lay waxtaane kere ba bis bi jàllee la tàmbali di ko waajal lu mu wax ne ma soxna mi suñ màggal gi lu mu wax ne ma suñ màggal gi mbaa yaa ngi koy waajal lii nga xam ne nag moom la bëgg ci bisub Seex Abdu bii yàlla na dajeek ngërëmul Seex Abdu Lahat te yàlla yàggal ko ci kanam njabootam ndax nit ku bëgg lu baax la lu baax rek lay woote gisuñu ko ci lenn lu lu baax njabootam it maa ngi leen di sant bu baax ndax ay nit lañ ñoo xam ne ay nit ñu baax lañ ay nit ñu am ful la ñu am fayda Seex Abdu Lahat mi doon wax ki ni mu waxee melu ni ni mu jëfe la mel soo ko xoolee ni mu mel rek xam ne noonu la mel nit ku yiw la nit ku amub yar la waaye nag euh, yarub doomi Serigne Touba yëmut ak kenn bi Get down. لما يغلد بسري علي رمى إن الكتاب جابي محمد صلى عليه وسلم يخلد آياته إلى جوار ما تدد بالانكهار